bi génn aussi euh, pas mal administration ak société monsieur Lansana Gagne Sakho ñu daal def euh, le président du conseil d'administration bu agence de promotion des investissements et des grands travaux du APEX euh, monsieur Fall mais aussi fal nañ ko mu nekk li nga directeur général bu institut national du pétrole et du gaz le colonel Amadou Ousmane Ba aussi euh, démb euh, nommé comme euh, directeur général de la surveillance du contrôle de l'occupation du sol en remplacement du colonel Papa Samouri Ndiaye en tout cas nomination yi na nag balaa di rek vite fait monsieur Abdoul Wahab Sall monsieur Aliou Ndiaye monsieur Pape Abdourahmane Dabo monsieur Atoman Si, monsieur Ibrahim Sall euh, colonel Ibrahim Gueye monsieur Aliou euh, Ndiaye colonel Lamine Kane monsieur Moudoufal Gueye monsieur Seigne Bakilo monsieur Jean Biram Ning euh, madame Fama Jean, monsieur Salif Baldi, monsieur Momar Tal Gueye madame Asia Diop madame Fatmata Bintou Djedjou monsieur Eli Paul Biagi, madame Sey Sissi, euh, madame Fatouba, Madame Nasiba, Madame euh, Nansunoura, euh, Monsieur Edmo Kamara, Monsieur Baynasse, Monsieur Serinchir Bahoum, Madame Sophie John, Monsieur Ousmane Sissé, Madame Fatouba Baranjon, Monsieur Malik Diallo, Monsieur Momodou Lamine Djouf, monsieur Abdou Diaw donc nag ñooñu le Bassirou Diomaye Faye nommé nag donc fu mu toll nii mën nañ japp ni administration bi raxas nañ ko bu mu daal di seet wecc et que euh, raxas bi desan desaat nañu ne d' nominations des na ko ci nga xam que moo les mercredis de Jomay Diakhar Fay du président et comme tous les mercredis mu daal ñuy ñëw ak ñun avec de nouvelles euh, nominations exactement alors avant dañuy daal di jàll si leneen concrètement euh, moy ki nga xam que moo Ousmane Sonko alors dama tar jot ben information à la dernière minute umpale wala ni nak ñi ngi wajal li nga xam que moo justement euh, foofu si diwaanu OFNAC Ousmane Sonko fa dem ay min ministre xam ñu a déclarer euh, seen ay patrimoine jàppale ni itam mm, euh, fu de toll selon article 2 bu loi numéro 2014 17 stipule que plusieurs responsables sont tenus de déclarer de leur patrimoine madame ñu si de nag jamono ji war daal di a déclarer seen ay patrimoine surtout ministre Ousmane Sonko exactement alors si vous de liste nak dafa daal inclure le monsieur le président ak le premier ministre ministre waaye les ministres et divers administrateurs euh, jàppale ni itam euh, les sources mentionnent que ces responsabilités ont répondu à l'appel avec une sérénité remarquable afin Madame, euh, ministre Ousmane Sonko yi pare pour daal li une déclaration de patrimoine en tout cas les ministres Ousmane Sonko se précipitent devant l'OFNAC Madame, ya xam di leen sax OFNAC daal leen pour wax leen exactement la ñu am alors euh, mu peut-être une première wala ko mu doon lu rare ñuy gis des ministres yi nga xam ni euh, pour daal wonu meuna wax sen alal fan la daal di toll waaye itam ana fan la ana fan lañ daal di meuna dem exactement donc déclaration de patrimoine les ministres d'Ousmane Sonko jamono ji ñi ngi précipité li na xam nekk moo di OFNAC pour ñu wëru a wax seen ay avoir manam li ñu yor waye tam ak euh, bën togué ba tey euh, seen koppar fu mu toll ni arfan bëgg alors xam nga c'est normal par rapport ñom lu ñu doon woote la rupture systémique gis nga rupture systémique bobu mais fay commencer par eux-mêmes <laughs> les ministres les ministres qui sont actuellement en fonction dafa am ben vidéo buñ ma donc euh, non buñ ma yónnee tay ci suba may gis bi ay va-et-vient au niveau de de cette corps de contrôle OFNAC hein, gis ay nit di va-et-vient di yakamti di xawma pour ñu jël donc euh, ñu def déclaration de patrimoine c'est normal conformément à la loi mm. c'est conformément à la loi ni que nous dañu wara déclaration de patrimoine donc l'État est obligé de respecter la loi loi lool la wax. Hmm. et aussi les agents de l'État, que les ministres les directeurs les ils sont obligés de respecter la loi donc bu féké loi mo loi dañoo déclaration de patrimoine dañu wara def déclaration de patrimoine ça la loi donc nous avons tombé le piège là où Macky Sall Macky Sall a échoué. nous avons Macky Sall dañoo gérer fait une déclaration de patrimoine même gis nga ko ba une sa déclaration déclaration de patrimoine dafa fait une déclaration de patrimoine. il ne respecte aucune institution dans ce pays Macky Sall il ne respecte pas les les textes de ce pays faalewul benn texte C'est ce que wax leen ko ñun man ba may wax ba may wax muy dem waroon def déclaration. oui dañuy né 2012 lu mu président de la république. buñ ko falé ba palé bala muy bala muy dugg en fonction da fay def déclaration de patrimoine bu waccé bu waccé bu perdre nguur gi bala muy dem dafa war a def aussi déclaration de patrimoine président de la république lool loi lool la wax mais Macky Sall defu ko. Macky Sall même bu mu gagné en 2012 bala muy def déclaration de patrimoine ñit ñi ñoko ko hmm oui parce qu'il n'était pas prêt à le faire ce n'est pas un aisé. un président qui vient à peine d'être élu déclare ses 8 milliards 8 milliards <laughs> sénégalais nous sommes nous que nous fal Macky Sall jum bu sénégalais en Macky à la tête de ce pays ñu élire un milliard dakk Macky Sall c'était un milliardaire préparé pour être président ñu fall la rek nga nous ñu hop Abdoulaye may na ma huit milliards <laughs> alors ba muy wàcc sénégalais yi doon xaar pour mu def sa déclaration de patrimoine mu jël roppalaan daw dem France tu l'as 4P ni que Macky Sall moo ma yónni kii. Euh, Macron Macron Macron y a comme tu yàkkamti au wu ma leen ni leen sénégalais maa ngi dem que le gars il ne respectait aucun texte de ce pays ce ko respectait mm. c'est lui l'histoire qui a ni que mom je voté la loi assemblée nationale pour modifier le calendrier républicain de ce pays Nous avons voté nañu voté chaque 45 jours de la fin de mandat d'un président nous voté Macky Sall nous modifier le calendrier républicain de ce pays parce que dafa d'autres ambitions électorales Macky Sall mom kessé def lu il doit être rapatrié et jugé parce qu'il a trahi ce pays il ne respectait aucune loi de ce pays après il ne respectait aucune loi de ce pays aucun texte té ba paré def haute trahison il y a un bilan macabre pour les morts les morts des hein, manifestations là donc par rapport la déclaration de patrimoine euh, c'est une grande affluence Je la gis les vidéos là mais c'est rupture systémique faut commencer par nous commencer gérer ce pays da nga war a dem OFNAC def sa déclaration de patrimoine keneen ñëw def ko keneen ñëw def keneen ñëw def nga dem c'est comme ça. Mm. boo wàccee it ñu ne la delluwaata fa nga def sa déclaration de patrimoine ñu xool ci diggante bi lan moo soppeeku ak lan moo soppeewul bu fekkee yow danga jël da nga mérito li nga yor tey ñu ne ñu ñu ne garaawul yow yaa ko mérité bu fekkee dañoo gis loo xamante ne méngoowul. ak yow sa salaire bi nga doon wam am ak ay premium nga am ay ci diggante bi ay immeuble ay batiment ay oto ay parking ba am ay range yu fay Faye ak leneen <laughs> ñu ne non non non yow lii sa salaire mayu la ko wala diggante bi nga nekkoon ministre ak léegi mayu la lii <laughs> loolu mooy waral ñu leen di ne pour ñu dem def seen déclaration de patrimoine parce que nit ñi fokk ñu xam OFNAC foog mu xam yow bala ngay duggu lan nga amone comme alal bala ngay tamit lan lan nga yor mm. OFNAC dafay bëgg am lolu les corps de contrôle d'État dañoo bëgg amulolo xam lolu donc lolu conformément à la loi loi lolu la wax fokk ñom ñu def déclaration de patrimoine mm. donc dama gis ni que ñu koy respecté mm. donc voilà beaucoup ko respecté Sénégal waccio ak yow nga waccio ak ñii c'est comme ça vous vous gérer une gestion de transparence de mm. am transparence da ngay sàmmante avec les lois de ce pays loi lu de wax def ko nga pare ci loi dafa de defal def ko yow en tant que ministre loi dafa la invité mm. c'est comme ça parce que t'es yow la bu pas keneen mooy bu pas malheureusement pas les politiciens là ñoom duñuy xalaat man directeur suba da ngay wacc Arfan ñew nek directeur Arfan wàcc Fallou ñëw Fallou wàcc masamba ñëw Massamba wàcc Mademba ñew dans les sociétés là c'est comme ça. c'est des épisodes. ñi ñi dañuy jaar jaar jaar la jaar jaar la. même dans la vie de l'être humain jaar jaar la parce que fi ken mom fi dara ñun ñun dañuy ñew ñu dénk ñu ñu dem bu ñu paré ñu dem aujourd'hui tay lan lañuy annoncer le décès du patron de i toog. Mm. Hein? ah. yërëm. da gis nga malgré lu mu def yëpp ci réew mi. am na les contrats même dañuy les contrats miniers sax les textes moom moo ko Alors c'est clair, enfin, c'est clair. Donc euh, les ministres de soins voilà. devant l'INA Khamnek Modi euh, ci Buntu Ofnak